taxoon na jóg mooy dañoo bokk ci mouvement bi nga xamante ne ñooy xeex feebar bi ñuy wax fistule. fistule mooy feebar bi nga xamante ne surtout si c'est obstétrical mooy feebar bi nga xamante ne day dal surtout jigéen ñi ci société bi ba pare euh, ñenn ñi di ko nëbb léegi ñun nag li ñu taxoon a jóg mooy pour sensibiliser population bi. surtout suñu mbokk jigéen yi di waxtaan ak ñoom pour pour feebar bi mën a jeex si feebar bu ñu mën a faj la waaw feebar bu ñu mën a faj la parce que euh, feebar bi bu la dalee da ngaa war a dem dépisté wu si poste de santé yi wala centre de santé yi wala di gis infirmier yi pour ñu lay ñun suñu rôle mooy ñun ay père éducatrice lañ pour pour gën a sensibiliser population bi ngir feebar bi wàññeeku ci dëkk bi. waaw xam nga fistule yi moom bëri na fistule yi bëri na ci réew mais ñu bëri dañ koy nëbb du génn wala ñu bañ ko wax parce que c'est un problème en général ñu bëri jigéen ñi dañ koy am mais du feeñ xëy na ñu koy nëbb di ko wax en cachette mais nekkul loo xam ne comme tension la wala hypertension xam ne dañ koy waxtaanee c'est un problème qui sérieux en général day intime ba nga xamné on est là on envoie mais nak foog nit ñi mëna xamné xam ne lu ñu mën a faj la motax ñu véhicule information ba nga xamné ñum dal ñëpp danañ mëna euh, wax seen problème njëkk en charge vraiment moy lool te aussi mi ngi ci quartier hein il suffit que nit ñi waxtaan ak à travers les VAD ou bien activité euh, de communication comme euh, mobilisation sociale ou bien yenn activité ñu mëna xam seen bop vraiment prendre conscience si danger affaire bobu wane seen bopp vraiment ñëw ñu jëlee en charge rapidement ba mën ko faj on envoie chaque jour chaque fois on envoie mais rien, ça ça passe silence quoi ndax dafa dafa sérieux quoi dafa c'est un problème sérieux boo xam ne neexul aussi waxee quoi moo tax mais y a na femmes yu bëri mi leen dal quoi.